Bienvenue dans votre rubrique Bi Sport pour votre deuxième édition consacrée au mercato estival tey dañuy wax ci transferu kii di attaquant bi di may Amady Niang di football foofu ca Rennes nga xamante ni boobu ba léegi équipe bii di Olympique de Marseille mu ngi ci ay négociation ci benn interview yu ngi ko jagleel Mbaye Amady Niang mu ngi dëggal lu ñu mel di firndeel ni ko ay négociation jot na am entre moom ak club boobu di Olympique de Marseille waaye boobu ba léegi amagul dara loo xam ne lu concret la ba tax moom signéegul ci boobu ba léegi Mbaye boobu di Marseille équipe bu ko neex la parce que équipe bu am histoire la ci France ak tàng jër ci interview ba léegi Mbaye Niang mi ngi naan bu dee projet sportif bi ko club bi di proposé neex na ko moom pare na pour signer teg ci ni moom pare na pour wàññi salaire am demee beneen club boobu di Paris Saint-Germain buntu yi ñi ngi ubbeeku pour défenseur central bu sénégalais bi di Kalidou Koulibaly parce que défenseur central boobu di Thiago Silva ak Paris Saint-Germain seen juróom-ñetti at ak léegi ñu ngi ànd ànd bu rafet cadre nga ci équipe bi bu ñu xoolee lu ñuul ci soow bi à part bañ a club bi di Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions amul lenn lu lay mën a reproché. loolu kon club bi di Paris Saint-Germain foog mu ut beneen successeur pour défenseur central am boobu di Thiago Silva. nee ni défenseur central boobu di Kalidou Koulibaly bokk na ci favori yi pour remplacer Thiago Silva. ngeen wax ñu seen xalaat ci commentaire yi. Koulibaly c'est le profil idéal pour remplacer Thiago Silva au Paris Saint-Germain. joueur bi di Mbaye Niang que dina am les épaules pour jouer ci boobu di Olympique de Marseille. xoolee pression ba fa am ci yi critique yi nga di club boo xam ne boo toogee ñaari journée dugaloo supporter duñ la mooy dara que Mbaye Niang il a profil pour jouer à l'Olympique de Marseille adapté ak système de jeu Olympique de Marseille bu ñu xawee xoolee ni équipe bi di Marseille il joue en 4 wala en 4-2-3-1